ab euh, liggéey bu am solo boo xamante ni jot na ñëpp xam ko jot na ñëpp i tamit bàyyi ko xel euh, sànni ko ay gët bokk na ci euh, jàpp si di une nouvelle plateforme maanaam benn plateforme bu yespex boo xamante ni dafa ñëw ngir jàppale askan bi jàppale ndaw yi jàppale ñi nga xam nag ñoom ñoo di soxna yi bawul kenn ci ñi nga xam ne ñu ngi fii ci xëbu Sénégal fi yeewoo te am ay mbébét ay xalaat ay objectif ngir bëgg a demal seen bopp bëgg nag tekki am seen yëfi bopp plateforme yi ñëw nag ngir euh, yokk yooyu lay jéego ngir tamit jàpp ci euh, nekk nag loo xamante ni soxee ko bitim réew waaye lawal ay banqasam ba fii ci Sénégal mu ñëw Sénégal lawal ko tamit nag ku nekk xam ne ne ku Ndakaaru Njaay di nga wax banlieue bi parce que banlieue moo def Dakar banlieue ñoom ñooy xëy di dem di liggéey euh, di daan seen doole waral nag ñëw fii ci Géejawaay au cœur fii ci Géejawaay installé fii seen ay banqaas samp fi seen i ay siège ngir nag askan bi gën leen a jege gën a am information xabaar bu wér gën a bokk ci liggéey bi loolee war a sax ñoom ñu na ma amal ab liggéey bu am solo jëm na ci concours boo xamante ni ni ñu koy jaglelee entrepreneur yi ñoom nag daañu leen defal concours boo xamante ni dañ doon ñett ñu ciy jël ndax ci ñett ñooñee ki ci njëkk dana am li nga xamante moom moo di euh, lii di rek euh, boo xamante ni neexal bi soixante-quinze mille euh, ki di ñaareel bi ci topp dina am cinquante mille ñetteel bi dina am vingt-cinq mille loolu nag nekk loo xamante ni ci vidéo deux pour convaincre la boo xamante ni dañ koy def ak seen i projet projet yooyu nag bu ñu ko fësalee mbëbët ci diiru ñaari simili wax ci li nga xamante moom moo di seen mbëbët seen liggéey seen seen xalaat euh, ci noonu nag la ñuy def euh, tànneef gi tànneef googee nag ki ci jël pay sax di soixante-quinze bi nii danañ ko boole ci plateforme bi mu nekk koo xamante dina liggéey ak ñoom waaye tamit dina nekk koo xamante dina ubbi euh, ay banqaas maanaam am ay partenariat ngir gën a jàpp ci projet projet bi nag nekk na loo xamante ni responsable bi mu ngi wuyee ci turu kii di Seyni Ñing nekk fi nga xamante moom moo di ci plateforme ci jàpp si Euh, plateforme bi nag nekk fii nga xamante ni jamono euh, ci ci euh, cité Djily Mbaye waaye tamit yamu fa mu ñëw fii ci Guédiawaye ci marché Serigne Mansour waaye boo ñëw ba ci lii di marché jeudi bi ci rond point bi rek boo jàddee ci ñaari xaal yi càllawle da nga agsi fi nga xamante moom ci siège bi ngir nag gën xóotal ci liggéey bi ak présentation bi ngir ngeen ngeen koo xam am ci information bu wóor am nañ ci koo xamante ni mi ngi wuyoo ci turu Pape Amadou Euh, ba moom dina leen defal présentation bu njëkk ci li nga xam ne moom moo di projet bi ngeen am ci avant vous maanaam ràññee ak xàmmeek la ci lii leen tax a jóg euh, kon Pape leen bàyyi mu présentation bi. Euh, salaamaaleykum maa ngi nuyu mbokk internet yi ci nekk sa tur sa sant tur bi Papa Amadou bala agent commercial jàpp si plateforme alors plateforme bi dafa yëngu ci mbirum offre d'emploi entrepreneuriat ak formation. donc ci offre ci ci entrepreneuriat lay lay rebondir pour présenter leen euh, suñu jeu concours bi ñu mettre en place ñu tuddee ko deux minutes pour convaincre alors jeu bi dafay dafay dafay dafay euh, encourager entrepreneurs yi pour ñu gën a wane seen bopp ci wàll bi ñuy bi ñuy yëngu cela veut dire que voilà euh, soo amee sa projet ci feras un vidéo da ngay def benn vidéo boo xamante ni en deux minutes la nga exposer projet bi wax la nag tenant ak ab aboutissant yi ci ci lan la vidéo bi di yëngu donc de fait euh, bu bu bu bu lépp anto nga nga mën a am raaya ci ci ci ci sa compétence yi nga yi nga yi nga jote wane à travers vidéo boobu noonu euh, donc loolu moo nekk une euh, sommaire boo xamante ni bu ndaw la pour présentation vidéo bi damay bàyyi beneen beneen partie bi maanaam second partie bi ak li ci des sama beneen ki may liggéeyal mu ñuy mu ngi tudd Talla Sow mu yeggalee euh, présentation. voilà mu ngoog kooku ngeen doon dégg sànq mu doon rek euh, wax di def présentation bi di ko leeral euh, moom mooy papa Amadou Ba tukulóor bi nga xamante ni macha allah mën na liggéeyam def na ko noonu présenté leen ci pàcc bu njëkk ci li nga xam ne mooy seen mbëbët leen tax a jóg ngir jàppale askan bu Sénégal jàppale ndaw yi soxna yi ak ñëpp ñoo xamante tey ji jur nañ ngir bëgg a demal seen bopp ci wàllum projet ci wàllum liggéey ak auto entrepreneuriat. ci noonu am na beneen nataangam boo xamante ni mi ngi fii sama wet defal beneen présentation ngir gën a xóotal ndax wolof euh, nee na euh, li moom du doy te li nga xam ne moom moo soxal euh, liggéey bi dafa laaj bi gën ko leeral waral nag kii di rek Talla Sow moom ici di ngeen ànd ak moom mu gën leen a defal beneen présentation gën a xóotal explication yi. asalaamaaleykum mbokk internautes yi ñoo ngi leen di nuyu ku nekk si turam ak santam Talla Sow laa tudd bokk si ndaw jàpp si plateforme di agent commercial. vidéo bi nag concept bi comme ni ñu ko tuddee deux minutes pour convaincre la li ñuy xaar ci ndaw bi nga xam ne dafa yor projet bëgg ko présenter mooy mu tënkal ñu ko ci ñaari simili mu wax ci lu mu mbébét ci projet am mën fa pàcc yi nag bëri na mën na wax ci xarale yu bees yi wala ci mbay ci càmm lu mu mënti doon waaye lu ñuy xaar ci moom rek mooy mu wane pertinence su projet am ñu xam ne kii kat projet bu mën a nekk la lu ñu mën a réaliser la mu présenter ko ci ñaari simili yuñ ko may. léegi nag danañu tànn ñett ñi nga xam ne ñoom la seen projet gën a rafet gën a compétent per pertinent ñu ku ci ku njëkk dina am soixante quinze mille francs ki ci topp dina am cinquante mille keneen ki ci mujj jël ñetteelu place bi dina am vingt cinq mille francs waaye duñ ci yem ki nga xam ne moom mooy jël première place bi danañu ko jàppale gunge ko dugal vidéom ci sunu plateforme ñu mën ko askan bi yëpp mën ko gis ñu mën ko jàppale ci financement yi ñuy def mu réaliser ay projet dina doon it loo xamante ne dina yee yeneen ndaw yi ñu xam importance su entrepreneuriat ngir jëmale sunu réew kanam wa salaam. ma xam naa ne dara rëccu ci leen ci ci les deux yooyu nga xam ne def nañ ko ñaari présentation yooyu euh, kii di Papa Amadou Ba ak Talla Sow ci plateforme bi yees bi di euh, jàpp si ñëpp nag waa see jàpp ndaw yu Sénégal. ndax ku ne xam ne ne ma nga soxe ko ci bitim réew partout dans le monde mais dañu ñoom dañu toog foofu dañuy déplacé wu dañuy jël seen i bànqaas jàppale askan bu Sénégal ci jamono ji nga xam ne rawatina euh, ñu nekk ci situation économique li ñu war a mën a am ci lañu jàpp war a mën a dem ñii ne jug ngir ñoom euh, jaayante ak seen euh, xam-xam jaayante ak seen kàttan ak lépp loo xam ne am na ko seeni i koppar ngir gunge askan bu Sénégal rawatina ndaw yi nga xam ne ñooy ëllëgu Sénégal kon il temps que ñëw adhéré bokk ci plateforme bi plateforme baa nga ñëpp ay buntam ils très open nekk équipe professionnelle dynamique boo xamante te ñoo ko ñoo ko ñoo ko yore fii ci eh, Géejawaay waaye tamit di leen fàttali ne dem fépp ci Sénégal fi nga xam ne mooy gox yi fasantikoo xam naa dañ leen di bàyyi rek ak les informations yooyu nga xam ne moom lañ ko seet dem nag seeti ki nga xam ne mooy lay mbili ji moom man moom lañ ko dénk fii mu koy doxal eh, di di Seydou ñi ngi di seq moom waxtaan laaj ak tontu ci lu gën a xóot ci lu gën a yaatu ci plateforme jàpp si kon boog gaañ jàpp leen si